Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël, la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de vous abonner, merci également des bails et commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais, fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal, Rokhourouha, les Gorgoha, les Ninglés, les Yadjofel, les Nek également, à l'hôpital, les Tikerito de Févre, Yann Simbrom Fagusen Bok, New York, Gam, Ninek Tikasso, Yann Hamne aussi, erreur judiciaire, Guinée, de Fulmon, Foyoub, Simbrom Guinée, Feu, Delawat, les Sénégapot, a de Doaduna, Simbrom Khalena, Djenefé, Dossi Gaël, et nous, on avance ensemble dans la magie des Sport TV et des Baba Show. L'actualité

musulmane bu Sénégal ben gagnant ken mais également qui nga donc Erling Bro Alan gars Noël Noël quoi On muscle il nous fait du Zlatan Ibrahimovic moom est euh, gis Zlatan directement pendant ce temps également Joao Neves que joueur Benfica 19 ans club du Manchester City Manchester United et également Paris Saint-Germain fini d'Al ñu ngi suivre booy donc le joueur la nouvelle pépite de Benfica pendant ce temps également ki nga aussi moi Ryan Cherki Momit équipe yu nekk ci Angleterre notamment ñoom Crystal Palace et tout ñi ngi koy suivre également Ryan Cherki le joueur aussi pépite de l'Olympique euh, lyonnais bi nga xamné dal mom depuis daaw ah, gars yi yaakaaroon ne saison bi sax du ko fekk du côté de la France pendant ce temps Mauro Icardi nak mom gars yi ah gis ngeen ko dafa wane kanam gi ah, ak li nga xamné ne moom bleu bi mu am fi ñom tubaab yi liñ tuddé bleu quoi gis ngeen ko ah moom daal match bi ñu doon joué contre ñi nga xam mooy donc euh, Skerok seen match bi en ligue plutôt en championnat turc ñoom ak marché.

contre Ambo 2026 2027 ñom ñi nga xamné score Isco ko jël librement donc on pare mu performances def performance exceptionnelle mu tombé pendant ce temps également joueurs yi nga xamné ñoo noté note yu du côté donc euh, de la Liga espagnole mi ngi Jude Bellingham avec une note de 8 top c'est les deux frères Williams hein, donc ma Iñaki ak donc Nico Williams 7 ñu 7,5 am également qui de Rodrigo avec également hein, une liste de 5 au total pendant ce également qui nga Joshua Kimmich Manchester City ñi ngi xol ci également situation également de même que ni di wa Manchester United et le FC Barcelone moom mi nga xam ne jamono ji déggawul dara ak ki nga xam nak moy donc ki di Thomas Tuchel moo tax jàpp ne Amad Diallo également à Manchester United ñu ngi xol nak duñ ko abaler pendant le mois de janvier bini nii am club yu bari ko soxla ah, donc Crystal Palace entre autres bokk na tamit ci club yi nga xam ne bëgg nañ dal ñu lañ koy abal bonne nouvelle pour ki nga xam nak moy donc Sénégal, qui a nga Carrick Michael Carrick entraîneur il ko daal joxe ne blessure blessure grave donc moom Sénégal reprend reprendre entraînement tout il devrait donc être bien présent pour la Coupe d'Afrique des Nations heureusement alhamdoulilah pour les bonnes nouvelles sont bonnes pour l'instant pour Sénégal, et on espère que ça va continuer comme tel pendant ce temps aussi hein, donc on est dans la même dynamique aussi informations qui information ci jour. joueurs est blessé on suit aussi de très près cas bu nga xam mooy donc Idrissa ak bu ki nga xam mooy Boulaye Boulaye et aussi du côté de la Prime League gis nañ ko dem Nicolas Jackson temps il est en manque de confiance Mauricio Pochettino nak defaan na ko Nicolas Jackson joueur bo xamné day soog a ci si club bi booy atam par rapport ñi fi ñëko nek am na joueur bëri fi jëloon jamono ji li ñu dugal sax mom dugalu ko nak mënu ñu chaque jour lepp lu xew rek ñu né mom la lepp lu xew rek ñu né mom la donc c'est ça Mauricio Pochettino défend ki nga xam donc Nicolas Jackson et c'est de bonne guerre maa ngi gis ñenn ñaan noonu nga bañ Nicolas Jackson man Sénégalais dal non, je pense que moi, nous devons suivre chaîne. mais comme je dis, nous, on a toujours prôné et valorisé Nicolas Jackson. Mais jour aussi, vous n'êtes une période aussi, il faut souligner, d'accord, parce que l'autre m'a motivé. Et je pense que c'est sur cette même dynamique. gars, il y a une situation de Nicolas Jackson qui, du côté de Chelsea, il va faire une bonne saison et tout. Et également, Wayne Delak, surtout faire Wayne Delak, vous n'êtes à partir de cette semaine Baba Show des reprendre je concours également dañuy xaar ben affaire am na ben copain bo xam ne day a ay maillots yu bees bees bees bees xam ngeen ki may wax peut-être bu génnee rek on relance les jeux concours pour les maillots du Sénégal su vous ci la su ñu la gai abonnez abonné abonnez et je précise que ce sera pour les abonnés le concours day am fi am ci Baba Show